bonjour tout le monde. Euh, je tenais à saluer tout chacun comme euh, je vous avais promis. Donc euh, aujourd'hui on va faire un direct euh, sur ça. Voilà. Donc on va faire direct sur euh, le divorce comme on avait promis hier. voilà donc di nuyu ñëpp encore une fois de plus ak ñi nga xamante ne mooy recommandation yi ñu jot jot capsule de vidéo bi. voilà di wax ni jot nañ yëpp macha allah donc euh, yu bëri tamit aussi am na ñuy soumettre ay thèmes aussi si par rapport ak euh, li nga xamante ne mooy pédophilie yeneen ak yeneen et tout ça donc yooyu yëpp di wax ni donc cabinet bi dina si dina si ñëw voilà di leen wax ne vous suivez votre émission. clinique juridique donc di wax ni clinique juridique euh, seen cabinet de juriste conseil d'Aguerre consulting moo leen koy moo leen koy may voilà euh, donc euh, mun si di si ñu mun si waxtaan tey tey nag comme je l'avais dit li ñu waxtaanee mooy divorce voilà ban divorce aussi la ñuy waxtaanee mooy parce que ñaari façon divorce mu am bi si njëkk mooy mooy divorce bi ñuy wax divorce par consentement mutuel mooy bi nga xamante ne tey mooy divorce bi war a xamante ne ñaari waay dencante yi toog nañ si waxtaan nañ si xam nañ tey ji dem nañ tribunal nekk di lay wax d'habitude sax moom lay wax li ñuy wax euh, divorce à l'amiable boobu moom euh, c'est pas un problème donc tey bi ñu yitteel mooy bi nga xamante ne moo sonal ñëpp mu ñuy wax divorce euh, Euh, divorce euh, contentieux donc divorce contentieux comme moo sonal ñëpp nag donc moom lay waxtaane dina wax ne il faudrait comprendre d'abord lan moo tax nit ki di divorce ak lan moo lan mooy sababu tey ji nit ki war a mën a dem war a mën a présenter li nga xamante ne tey ji si moom mooy euh, divorce yi voilà causes yi en fait cause du divorce yi <clears throat> lan la lan la euh, yan cause nga mun a déclarer boo mu ne war a dem euh, fi nga xam te ne mooy tribunal pour ne ah man ka dama bëgg a divorcer bu la laajee sa cause lan moo tax nga bëgg a divorce nga mun a évoquer cause yi nga xam ne après donc dinañ si waxtaan nga ne cause bi ak bi ak bi ak bi moo tax voilà donc après dinañ waxtaan beneen vidéo boo xamante ne ça va parler uniquement si li nga xamante ne tey ji mooy la garde des enfants bon lii wax dossier familial mooy divorce garde des enfants donc aussi yooyu lay waxtaan mais tey moom on va parler que du divorce waaw quelles sont les causes du divorce contentieux donc divorce contentieux foo ko déggee mooy divorce boo xamante ne nekk divorce à l'amiable divorce à l'amiable moo xamante ne tey jii toog ngeen waxtaan ngeen échange ngeen vous avez décidé de divorcer parce que loolu déjà moom mooy moo gën a adéquat parce que comme ni ñuy faral di wax si diine donc bu fase bi rafetee rek donc jëlin bi tamit aussi dina rafet mais bu fase bi ñaamee rek jëli bi du du rafet moo tax donc ce qu'on conseille le plus souvent c'est voilà de faire le divorce à l'amiable ce serait mieux aussi hein voilà ce serait mieux de faire un divorce à à l'amiable beneen bi aussi mooy euh, voilà donc cause de divorce yi alors premièrement ce qu'on peut parler des des causes de divorce mooy euh, lu ñu wax ce qu'on appelle une absence déclarée de l'un des époux donc loolu c'est un peu compliqué parce que il faut ce qu'on appelle la déclaration de présomption déjà parce que tey jii toog nga un an boo xamante ne déggante woo sa jëkkër wala tey jii déggante woo sa jabar toog nga un an boo xamante ne bi nga mujjante dégg ak moom léegi mot na un an donc da ngay dem tribunal boo demee tribunal nga wax ne ah man kat je vais faire ce qu'on appelle une déclaration de présomption d'absence soo defee li ñuy wax déclaration de présomption d'absence boo demee juge mu toog jël na sa requête bind na ko moom it day toog li nga xamante ne moom la ñuy wax euh, donc euh, beneen un an boo xamante ne moom lay toog bu toogee ci lay ci lay génneel le de la déclaration de présomption d'absence voilà donc bu defee déclaration boobu noonu après yow da ngay toogaat deux ans nga delluwaat foofu noonu mu soog la defal ce qu'on appelle la décla le jugement de la déclaration d'absence jugement déclaration d'absence boobu noonu moom euh, mu ngay te euh, dugal li nga xamante ne yow mooy sa divorce comme ça tu tu pourras divorcer directement donc boobu mooy premier point bi mooy li nga xamante ne kenn si waaye dencante yi toog na kenn amatul nouvelle am déggatuñ ko fenn kenn gisatu ko fenn aussi toog na déggatuñ ko fenn donc bu demee ba amee ce qu'on appelle la déclaration d'absence voilà mooy jugement déclaration d'absence bi bu ko amee rek donc dina mën a dugal li nga xamante ne moom mooy divorce am et passer à autre chose beneen bi mooy aussi adultère donc euh, c'est un cas très fii nii. parce que adultère dafa nekk loo xamante ne pour nga prouver ko c'est il loo xamante ne waaye dama ko dégg muy wax téléphone wala dama ko gis lii non non non dafa nekk loo xamante ne il faut nga prouver ko matériellement parfois aussi mun nga jël sa téléphone njëkkër fuye ko jël données personnelles yi mais bu waxee ne la tey jii daf lay topp ne carrément danga jël ay données personnelles foo jëm c'est un problème c'est un problème donc moo tax il faudra faire très attention si côté boobu noonu donc moo tax bu nga ko prouver autrement que jël ci téléphone am wala def ay capture d'écran wala ay audio yooyu noonu voilà là on peut dire waaw loolu mooy wax euh, donc euh, délit d'adultère donc délit d'adultère fa nekk loo xamante ne aussi cause de divorce donc wax naa première bi mooy li nga xamante ne moom mooy déclaration d'absence donc wax naa procédure déclaration d'absence dañ koy defee deuxième bi mooy li nga xamante ne moom la ñuy wax euh, li nga xamante ne mooy adultère donc troisième bi moom la ñuy wax condamnation de l'un des époux à une peine infamante peine infamante foofu nañu ko déggee mooy euh, tëj nañ ko peine moo xam ne peine criminelle la peine criminelle mooy tey ji soit mu nekk travaux forcés soit mu nekk peine de mort soit mu nekk même travaux forcés mu nekk à temps plein li nga xamante ne mooy partiel voilà wala mu nekk li nga xamante ne mooy détention criminelle donc yooyu buñ ko tëjee sa jëkkër tey jii mun nga ko mën nga demande le divorce mais <laughs> comme on a de le dire Sénégal fii c'est y a un problème parce que danaa la wéy toog nga ba benn période bi waroon nga ko war a mënal tëj nañ ko donc war nga mën a toog xaar mais bu dee ne moom liñ koy jiiñ moom moo ko def mais attends tax naa doo fa nekk di toog aussi di xaar voilà c'est problème aussi parce que munoo xam ndax moo def wala deful donc euh, il faudra nga xam nan ngay defee ci si ci ci côté boobu noonu parce que c'est le problème en fait au Sénégal ñu bëri dañuy dund yenn yu métti mais boo demandé le divorce rek dañ naan pourquoi tu as demandé le divorce lu tax tu as demandé parce que tëj nañ sa jëkkër dem quoi c'est une trahison ben non parce que sëy bi ngeen di sëy dama yaakaar ne yéen ñaar da ngeen toogoon waxtaan vous pouvez vivre donc paisiblement waxtaan échanger tout ça mais si vous n'avez plus cette possibilité là mais ça va être un problème ça va être moo tax euh, peine bi il faudrait aussi euh, voilà, être courageux pour, pour demander le divorce parce qu'on a condamné votre mari à une peine criminelle. Voilà. Benen Bimo aussi, moi, euh, le défaut d'entretien de la femme. Ouais. Le défaut d'entretien de la femme. Parce que si vous avez un peu de temps, mais l'un de temps, c'est le mariage. est-ce que solo beeg yooyu noonu est-ce que tey ji par rapport ak moyens yi la il faut ñu il faut être pragmatique par rapport ak juge bi nu muy gisee tey ji yaa ngi am jëkkër boo xamante ne tey mi ngi fayeku tel somme donc somme boobu noonu est-ce que tey ji par rapport ak li nga xam ne moom ngay dund ndax méngoo na bu dee tey ji mi ngi fay loolu lu luwaaye bu dee na dëkkoo bu dee dëkk tey amul kër boppam su ne tey jii mi ngi lay jox nga lekk nga naan mi ngi toppatoo xale yi xëy na sa problème mooy argent de poche wala tey jii ba waree dem xew et tout ça non loolu du toppatoo du tax taxul ñuy wax ne toppatoo bi ñu la toppatoowul war nga mën a tey jii demander la def toppatoo bi tax mooy charge ménagère <coughs> charge ménagère parce que d'habitude cas yu may faral di jot bu ñëwee man a ko naan quand tu veux demander le divorce directement ça va être problème il faut juste dire que ne tey dama dem. j'amène moo mari ici parce que il y a ce qu'on appelle la non prise en compte des charges ménagères mooy tey ci dund xale yi sa dund yi tout ça loolu mun nga ne sama jëkkër toppatoo ma voilà même bu dee ne da ngay fay ko weer même bu dee da ngay fay donc dafa am loo xamante ne moom moom la war muy tey ji dund bi lekk bi naan bi loyer bi électricité bi loolu moom la war ça dépend aussi si par rapport ak li nga xamante ne foofu la dooleem toll bu dee tey ji mun na ko am na ko def ko bañ a def ah là tu peux demander pour défaut d' entretien pour défaut d' entretien même bu dee dafa fekk ne tamit da ngay liggéey parce que tey du góor di takk parce que comme on dit le droit sénégalais a donné tey ji li nga xamante ne moom mooy euh, un rôle très important à Euh, à la femme. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez m'interrompre aussi quand vous voulez. Hein. Voilà, donc vous pouvez m'interrompre quand vous voulez pour pouvoir poser toutes vos questions. Voilà. Vous pouvez aussi appeler sur le numéro, je l'ai déjà mis en commentaire. Voilà. Ah. Donc, euh, non, non. Voilà. Donc, défaut d'entretien, c'est pour ngeen mën ko xam défaut dans ceeb bi mooy tey jii li nga xamante ne mooy charge ménagère yi du ko jël en compte muy dund bi muy lekk bi muy naan bi yooyu yëpp du ko jël en compte donc loolu même bu dee ne ku jigéen ki dafay dafay liggéey voilà donc charge ménagère au mari il faudrait le savoir ça au mari mais <laughs> Sénégal ak góor Sénégal sama jabar ak liggéey y a pas de souci donc on peut mën nañ ko bàyyi mu mën naa ko bàyyi mu gérer yenn tâches yi non ça se passe pas comme ça à moins que ngeen waxtaan si ba moom mu ne la ah mon amour ou bien tey bébé kat bàyyil man mën naa gérer li ak lii mais nga ñëw rek parce que mi ngi liggéey rek nga ne non dugg na fii je parle aux hommes loolu bu demee ne tey jii sama jëkkër jëlatul benn charge ménagère demande le divorce et eh bien on l'accorde parce que jëluloo benn charge ménagère tu te fondes sur le fait qu'elle travaille c'est très important alors beneen bi mooy euh, par rapport ak euh, li ñuy wax euh, boo waree takk jabar wala nga war a takk wala ñu war takk mais d'habitude on parle du du mooy tey nga war a takk jabar nga ne ah man kat décidé naa su ma ko takk lii ak lii lii ak lii laa koy defaral lii ak li mais loolu nga ko war a defaral defuloo ko donc y a un manquement li nga xam ne mooy engagement yi nga jëloon au départ. pour tey ji bi am engagement yi nga jëloon au départ te bi amul ku jigéen ki bu la si toppee ne ah yow kat bi ngay bëgg a takk na nga ne woon lii ak lii ngay def tu avais plus cet engagement là ça y tout le monde yaa ko waxoon donc defuloo ko eh bien moi je quitte le navire très simple voilà très simple il faut apprendre à ngeen di prendre votre vie en main parce que euh, majeure partie bëri c'est tout le temps comme sa donc ñu ngi nekk fii mais ragal bi dafay nekk et s'exprime pas beaucoup de femmes d'aujourd'hui ne s'expriment pas et c'est très dangereux voilà nit ki li ngay dund yow yaa ko xam du koo xamante ne ma sàmba wala ma demba la nga war a dund li nga xam te mooy say droit il faut les réclamer say droit il faut nga koy réclamer bul bàyyi kenn kenn kenn kenn kenn kenn di si empiété li nga xamante ne moom moo la warloo ak sa borom kër na koy def li nga xamante ne tey jii yow tamit moom nga warloo sa borom kër il faudrait le faire aussi parce que avant de réclamer un droit il faut faire ses ses alors euh, beneen point bi bi ñuy waxtaanee mooy euh, l'abandon de domicile conjugal le risque moi je l'appelle comme ça par rapport à mes dossiers le risque voilà je vais faire un grand point ici il faudra bien écouter da am sa jëkkër ngeen di sëy mu fase la nga dem mu woo UC mu ne ah diwkat abandonné na famille bi dem na yoon looy def mënoo si dara buñ leen fasete toog leen si kër gi bu waxee nga ne ko seul le juge au Sénégal est habilité à dissoudre un mariage au Sénégal fii seul le juge est habilité à dissoudre le mariage personne d'autre donc la répudiation muy fase elle est interdite au Sénégal la répudiation je répète elle est interdite au Sénégal la répudiation elle est interdite donc il faut ngeen comprendre que ni il faudra ngeen comprendre que ni voilà que ni bu leen fasate toog leen ci kër parce que d'habitude ñu bëri samay clients yi bu ñëwee je foo nekk nii yaa ngi sa biir kër ou bien da nga génn kër gi non daf ma fase ma dem ma ne ko retourne à la maison automatiquement retourne à la maison non ma ne ko non retourne à la maison ou bien tu fais appel à un huissier mu dem wax ko ne mu ne ko carrément moom moo ma fase bu bañee rek ne non fase moo ko rek tu prends tes parce que a l'huissier l'huissier comme on le dit day acté li nga xamante ne moom la gis li nga xamante ne moom la fekkee parce que bu demee danaan ko carrément je suis un huissier question yi la koy posé il a droit de répondre su répondre lu muy bind loolu lay bind ko carrément il n'avait pas répondu moo tax mënoo leen bëgg dara et du leen ko jaral il faudra aussi mettre le prix voir tey ji un huissier bu leen passé carrément ñaar moo mën a am soit ma génn kër gi ou bien tey jii ma woo huissier mu constaté ko wax ne carrément yow yaa ma répudié te su boobaa ce sera à ses risques et périls parce que la répudiation elle est elle au Sénégal beneen bi mooy euh, lu tax lu tax sax ma si ma si insisté excusez parce que la conséquence ce sera après la garde des enfants parce que tey nga ñëw tu abandonnes ce qu'on appelle le domicile conjugal moom bu woowee huissier mu ñëw constaté ni sama soxna ka dafa dem bàyyi ma xale yi elle est partie da nga ko fase mu ne noo fase wu ma ko mënu leen ci dara parce que loolu la wax suba day dem tribunal déposer plainte euh, déposer ci nga dama bëgg a divorce ak sama soxna parce que lii ak lii lii ak lii d' accord bi ne ko pourquoi mu ne ko parce que dafa def avant de domicile conjugal suba boo ñëwee dégg ko père xel danaa la tu es incapable de gérer les enfants parce que tey da nga dem bàyyi fa say doom. donc moo tax il faut faire très attention bu leen fasetee toog leen seen biir kër yi il faut rester chez vous comme on le dit souvent rester chez vous entendre tey jii juge bi déclaré xëy na mu nekk loo xamante ne xëy na sa vie est en jeu te loolu il faut aller au tribunal déclarer juge bi ne ko carrément mënatuma fa nekk parce que ma vie est en danger parce que j'ai un mari agressif wala j'ai un mari ceci ou bien j'ai mari cela mais bu leen fasetee toog leen parce que conséquence bi mooy suba li nga xamante ne tey jii mooy pour la garde des enfants voilà je pense que la garde des enfants naa def vidéo spéciale boo xamante ne tey parce que ñu bari li ñu bëgg a tas li ñu bëgg a divorce elles souffrent elles ont mal elles pas heureuses mais bu ñu xalaatee ne tey bu ñu divorcé du ñu mën a jot seen doom elles préfèrent rester et mourir là donc moo tax il faut il y a donc c'est pas donné à tout le monde Euh, le divorce, c'est un dossier. Ce sont des dossiers. Les divorces sont des dossiers très compliqués. Ils font quelques bombes. C'est un rusé. C'est un rusé. Bon, ils s'y connaissent. Ils s'y connaissent. Mine lu bari aussi xamna tay ji yan technique ngay def tay ba mëna jot parce que comme je l'ai dit tantôt le cabinet d'agriculture consulting c'est pas seulement venir oui tu veux divorcer je vais divorcer oui non non c'est des simulations par cas yenn réponse nga war a joxe boo toog juge bi nan ak nan nga war a comporter pour gagner ton procès parce que tout ce que je veux c'est que tu gagnes ton dossier quand tu payes ton argent tu gagnes ton dossier directement parce que c'est ça mon objectif avant tey jii j'ai traité dix cas j'ai les dix cas man y a pas de j'ai cinq cas ou bien trois cas non j'ai traité cas j'ai dix cas moo tax je prends les devants def subulation si les juge était là même parfois bu jare yuux tu tu le fais juste pour pouvoir permettre à ta cliente ou bien à client de pouvoir de pouvoir beneen bi mooy euh, beneen cause de divorce je pense je parlais de l'absence déclarée je pense que je parlais d'adultère de condamnation défaut d'entretien de l'un des époux de boo xamante ne jëloo ay engagement maanaam yu jëloon def ko respecté ko bu mujj bi mooy l'abandon de domicile conjugal beneen bi mooy mauvais traitement mauvais traitement sévices et injures parfois ni ngeen nekk ak sa sa borom kër Euh, attendez mooy benn bi mooy vous êtes avec euh, votre mari donc mu am suñuy wax ñagas ñagas ñagas ñagas bi nag comme on euh, dit ah mooy tey jii day nekk loo xamante ne saagale injure voilà c'est comme injure en temps normal sax c'est puni par la rawatina nag tey jii boo nekkee sa soxna comme te nga nekk ak moom waaye caga nga voilà da ngay nekk mooy kat nga da ngay njaaloo dugg na fi génn na fi ça ça apporte atteinte à l'honneur de la personne ça porte grave à l'honneur à de la personne moo tax yooyu bu amee voilà ce qui voudrait ce qui li ngeen war a def mooy euh, directement aller déclarer ça et demander le divorce parce que tey même si dina dañ naan la tey. yàgg sa soxna yéen a ngi nekk vous jet là nga jiin ko njaaloo dangay taxaw waat ne mankat lii moom may jiin defuma ko moom mu waat ne moom bett na la wala gis na la ngay njaaloo ku nekk si yéen ñaar day waat après nag la sa des na ko ak yéen ngay gàll mais sëy bi parce que ay kàddu yu ñaaw la yoo xamante ne si mu ngi dox seen diggante mais nit ko xam ne jiin na la yenn yi wala wax na la yenn yi y avait eu des témoins qui étaient là donc euh, ça si c'est cause de divorce la parce que ce sont des injures très graves qui portent à l'honneur et la dignité de la personne voilà beneen bi mooy euh, pour stérilité définitive et médicalement prouvée du ne man ko damaa nekk sama jëkkër ça fait cinq ans mais mënuñu am doom sama jëkkër mënu am doom ou bien man mënuma am doom sa wala ku góor ki sama jabar mënul am doom non il faut que médecin bi prouver que carrément la femme ou bien l'homme est ngeen bàyyi si xel voilà tey ji mun nga nekk sa soxna toog na benn période bi amul euh, li nga xamante ne mooy doom et puis voilà tu demandes le divorce ou bien ko toog góor gi xam nga ne carrément mënul am doom tu demandes parce que même si dina je pense wax nañ ko mën nga may ko un mu faju bu ko mënul loo fa toogati aussi yow la yow la concerné donc euh, mi ngi noonu donc stérilité prouvée médicalement pas su ay supposition encore je répète pas si ay supposition il faut juste que ça soit médicalement prouvé que ne carrément man mii kat ak sama sama sama soxna ni kii moo soxna si mun am doom ba sama jëkkër mun am doom voilà parce que j'ai reçu récemment un cas la femme a découvert que ne son mari mënul am doom voilà donc beneen bi mooy aussi une maladie incurable mooy feebar boo xamante ne kenn mënu ko faj leen la bii kat médecin na moo xam ne feebar bi kenn mënu ko faj boobu moom ñaar moom mën am soit nga garder sa mais quand même la loi te donne la possibilité de demander le divorce parce que effectivement li nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy maladie bi c'est incurable loolu moom tu as le choix maintenant voilà comme nekk ku góor ki comme nekk jigéen beneen bi ñuy terminer nag mooy euh, incompatibilité du parce que sëy yu bëri léegi bu tase je pense que majeure partie c' est ça en fait incompatibilité d'humeur incompatibilité mooy tey jii yéen a ngi dëkk mais seen dëkkin neexul je pense que ñaar nit bu ñuy le plus important mooy dëkkin bi neex kii le bonheur kii l'épanouissement ñu waxtaan kafre su demee ba tey jii boo ko gisee ak gis sa butit ñoom wala bu la gisee ak gis butitam bi ñooyam je pense que là y a un problème le mieux c'est de divorcer moo tax la loi la possibilité tey jii ki nga xamante ne mooy les époux de pouvoir demander Dieu parce que il y a une compatibilité du père et d'habitude majeure partie des cas je traite c'est ce qu'on appelle une une incompatibilité du mari rares des cas yoo xamante ne cas yi ay déclaration d'époux wala tey jii ay maladie grave mais incompatibilité d'humeur injure grave ak li nga xamante ne tey jii moom mooy euh, abandon domicile conjugal wala tey jii non prise en compte de ce qu'on appelle des voilà donc yooyu mooy yu yëpp donc incompatibilité d'humeur fu mu amee nu la na tey seen dëkki neexul demande le divorce parce que la loi vous a donné l'opportunité de pouvoir demande le divorce sur cette base voilà donc je pense que comme je l'avais dit hein, j'ai présenté les causes du divorce j'ai bien présenté les, les causes du divorce parce que ce sont des questions xamante ne ñu bëri dañuy ñëw parfois au cabinet di laajte euh, donc euh, Daguerre comme euh, ñu bëri tey dañuy bëgg a divorce mais duñu xam ban yoon lay jaar et bien c'est très simple le problème qui se pose mooy tey jii majeure partie si ñenn ñi dañu xamul ban yoon la ñuy dem tamit dafa nekk ay dossiers divorce ce sont des dossiers yoo xamante ne c'est pas trop pris en compte par les cabinets d'avocats et pourtant c'est très essentiel dans la vie d'une personne parce que ñu bëri tey jii ñu ngi bëgg a dem si leneen te duñu am possibilité yooyu noonu pourquoi parce que ñu ngi suivre dans les liens du mariage i ils savent pas ou bien ils savent pas comment tey divorcer donc c'est très important faites-vous assister par un conseil juridique ou bien par un avocat donc le cabinet Daguerre Daguerre Consulting est à votre entière disposition par rapport ak euh, cas yi nga xamante ne moom mooy cas de divorce di wax ne on ne traite pas les les cas de divorce je pense démb defoon naa benn vidéo sur le stress parce qu'il fallait choisir entre le stress ak euh, li nga xamante ne mooy cas de de divorce Donc, on a choisi, donc beaucoup m'ont appelé. On dit le plus important, le plus urgent, c'est de faire euh, le divorce. Parce que le cas de stress, il faudrait le traiter au moins sur 3 à 4 vidéos. 3 pour permettre à tout un chacun. Parce que c'est un fait récurrent. C'est Aujourd'hui, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes souffrir. Je me suis, il y avait même hier quelqu'un qui avait, qui avait posé cette question. Pourquoi les hommes font du mal euh, aux femmes J'ai dit, ah, c'est une question vraiment euh, très délicate à répondre parce que le Hamna Dokadef aussi, quand même, ce serait, disons, je sais pas comment l'expliquer, des méthodes pour nous répondre. Et tout ce que je peux vous dire, le cabinet de counseling est prêt à aider beaucoup de gens sur maintenant le dossier familial. Quand je dis dossier familial, c'est d'abord le divorce. Comment préparer un bon divorce. Ensuite, la garde des enfants. Ensuite, et enfin, ce qu'on appelle comment refaire sa vie. C'est très important. Après avoir divorcé, comment refaire sa vie. C'est très important. comment on doit refaire sa vie parce que ñu bëri après dañuy dund stress c'est ce qu'on appelle stress post-traumatique ñu dund yenn yu métti tey jii lu jëngu rek non ou bien góor bu ñëw tey jii excusez-moi góor bu ñëw doxaan seen non ils sont tous pareils alors que non il faudra apprendre ce qu'on appelle le surpassement le surpassement à pouvoir gérer bien sa vie la gestion des crises la gestion de ce qu'on appelle des émotions ay mbir la yoo xamante ne ça se donne pas du jour au lendemain jot jotu la dund su lu métti ay dañoo xam ne tey jii am nañ mantal de fer mu nañ ko gérer mais am na ñoo xamante ne tey jii pour ñu gérer loolu c'est c'est très difficile donc le cabinet accompagne donc ses clients sur ça moo tax boo ñëwee y a un packaging soit c'est la la consultance tout court tu viens tu poses tes questions et puis on s'en arrête là ou bien ce qu'on appelle le dossier divorce ou bien ce qu'on appelle le dossier le dossier donc yaay xool par rapport ak li nga xamante ne mooy tey ji lan nga bëgg et c'est ce que le cabinet propose voilà cabinet bi loolu lay proposer nga xool te ji lii laa bëgg ci loolu la lay doxal parce que tey ji il faut qu'on change de mentalité di wax beneen bi mooy le le mur là bu daggee consulting bi c'est un mur libéral je tenais à préciser fii kenn du xas kenn kenn du wax kenn lu ñaaw on s'exprime librement. Dites ce que vous voulez, ce que vous pensez, tout ce qui est dans votre cœur. Fii on ne juge personne. On est dans un monde boo xamante ne tey dañoo toll si changement. Il faudrait être heureux et ça à n'importe quel prix. Donc Daguerre seen libéral pur et ñi nga xamante ne ñoo koy suivre yooyu ñi nga xamante ne ñooy dem si cabinet c'est pour cela j'ai associé maintenant euh, ce qu'on appelle la constance psychologique et le développement personnel maintenant dans les dossiers de divorce parce que ñu bëri doon doon bëgg bon dañuy nekk seen entreprise day ñëw comment on va faire maintenant pour pour avoir ce qu'on appelle une confiance en soi mais j'ai vu que ne c'était beaucoup plus adéquat et le besoin se sentait beaucoup plus ak ñi nga xamante ne mooy les divorcés parce que tey jii ce sera très difficile tey jii pour refaire sa vie moo tax mur bi dites ce dites ce que vous pensez. Dans la vie, il faut apprendre à être heureux. Vous avez un besoin, vous avez un désir. Vos besoins primaires, vous les exécutez. Moi, les et tout ça. Vos désirs aussi, il faut les exécuter parce que ça fait partie de votre vie. Il faut s'aimer d'abord. nit ki foo nga bëgg sa bopp bëgg sa bopp mi ngi tàmbali tey sama bonheur lii la damay dem doxi ko du ma xaar nit ku naa ma fii nga war a yem nii nga war a def wala ñii nii lay def non parce que la ngay dund yow rek yaa ko xam il faut apprendre à vivre il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des coincés excusez-moi qui sont des coincés parce que il vivent pas ba pare ils toxiquent la vie des autres non sa vie sa vie la dund ko nu mu la neexee ak noo ko sentir dis ce que tu ne calcule pas les autres parce que chacun fii am na dundam bi muy dund ku nekk fii am na dundam bi muy dund et pourtant kenn jugé wu ko si loolu yow mi nga xam ne yaa nekkam doo ko jugé et pourtant erreur bu boo def on juge dundal sa dund quand tu as envie de divorcer va divorcer tu vas pas rester dans un ménage boo xamante ne tey ji leer na la fii nii y a ni le bonheur sax ça peut même pas une considération, même pas de sentiment, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez rester là-bas à vous détruire intérieurement. Da ngay de ba mujj gi tey ji moment bi nga xamante ne yaa ngi besoin de vivre et accompagner les enfants et tout ça, fait que ce sera trop tard. Vivez votre vie comme vous le sentez. Ça n'a pas de sens de stresser. J'étais surpris l'autre jour quand j'étais à Basnop pour regarder. Xool que maintenant des jeunes filles de 25 ans, 30 ans, 35 ans sont atteints de ce qu'on appelle euh, le goitre. D'habitude, on pouvait comprendre 40 ans, mais c'est quoi ce fléau Parce que les gens sont là, qui ancrés aussi leur maintenir. Le monde avance. Et le monde avance très vite. Que tu avances, que tu n'avances pas, le monde avance. Parce que ni ni ni nit ñi ñu ngi avancé maintenant yaay xool ne non je vais pas faire ci je vais pas faire cela et eh bien reste coin et tu verras kan ko ko def sa bopp nga ko def donc dund leen autant que vous pouvez que vous ayez cent francs jënd sa benn kaas café doxantu xàppi dund nu mu la neexee tu as de l'argent vis ta vie comme tu le sens parce que ñaar moo fi boo ñëwee sa def fii ce que toi tu vis ton bonheur qui est là ak nga xam ne moo la warloo yàlla nga di ko def l'essentiel mooy bul tooñ kenn mais tamit bul nangu kenn ku empiété si li nga xamante ne mooy sa bonheur ça c'était un conseil que je vraiment pour pour beaucoup de personnes vivez votre vie soyez des libéraux vivez votre vie comme vous le sentez ça ne à rien effectivement à rien du tout de stresser ou bien de vivre loo xam ne ça vous fatigue après on est dans un monde qui